docteur Dame Sow maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu auditeurs yi waa Rewmi FM. yow yaay directeur de l' élevage am nañu mbégte dalal la ci réew mi FM tey euh, docteur euh, ay fan yu néew moo des ñu yegg ci tabaski 2020 bi nga xam ni fanweeri fan ak benn weeru juillet bi la ko jàpp ñu bëggoon a xam euh, xar yi fan la toll ak xëy na li askan wi yittewoo ci atum ren ji. waaw comme ni ko waxee. léegi ginnaaw jàpp nañu bis bi xam nañu diggante fii ak tabaski ñaata fan la waaye ñun euh, commencé nañu liggéey ci préparation bi depuis lu yàgg a yàgg kilifa réew mi moom moo joxe instruction ministre yëpp euh, suñu ministre di ko coordonné moom tamit mu jox instruction service am yëpp di suivre bu bëccëg li nga xam ne moom la ñuy liggéey euh, instruction yi ñu jot jëwit kilifa réew mooy fexe ba sénégalais yëpp mën na am xaru tabaski man fi jot tamit euh, loolu nag insi sas bu rëy parce que Sénégal euh, macha allah suñu suñuy xar bari na lool mais xar yi soo seetee ngénte yi si lañ koy jëlee xew yëpp si lañ koy jëlee euh, sama mbokku caameen ak jaajaa yi nga xam ne guddi dañuy laaxatu doxantu mm-hmm. dibiteri yi tamit lañ koy jëlee loolu lépp nag dafa dafa di loo xam ni euh, Sénégal euh, du réew mu yaatu du réew mu bari espace euh, loolu moo tax li nga xam ne am nañ ko ay xar bari na macha allah mais su tabaski ñëwee li fiy def dina dina dina man a fexe ba ñu bari am seen xar mais nag day am lu si manqué loolu moo tax naturellement ak régulièrement Euh, waa Mali dañ fi ñëw waa Mauritanie di fi ñëw di jaay seen seen jur mais aussi di permettre ñu mottali li nga xam ne nii moom la ñu soxla euh, soo seetee euh, ren ñu ngi soxla huit cent dix mille xar mooy juróomi téeméer di nekk fukk junni xar pour ci Sénégal yi parce que nag Sénégal dañuy ay xare ci bëy ëpp na million di wéy parce que waa àll bi compté wuñu li ñuy li ñi nga xam ne nii dañu teel a jënd sax te ñu jënd ko feneen te boobu lim jëlaguñu lim di ñu teel a yar seen i xar euh, ñooñu tamit euh, duñ ko compter ñi nga xam ne nii dañuy juddule xar aussi ñooñu duñ ko compter parce que mënuñu koo xam mais li nga xam ne nii moom la ñu xam mooy li nga xam ne mooy ñëw ci marché yi mooy marché hebdomadaire ci hmm. marché mooy luuma yi ci marché bi nga xam ne nii marché quotidi quotidien la mooy fora yi nga xam ne bis ku nekk euh, dañ koy jaay xar dañuy hmm. lim mais tamit su tabaski bi jegesee Dakar gouverneur day jël arrêté boo xam ne nii day day autorisé euh, ay ay jaayukaayu xar ren muy fanweer ak juróom-ñett yooyu tamit euh, yi nga xam ni nii du fooraay dañ leen di aménager lim li fay nekk loolu nag fuñ toll nii li mu wane mooy euh, soo seetee li nga xam ne nii mooy marché Dakar parce que mën naa ko joxe misaal hmm. mooy marché terminal bi gën mag parce que li ñu fiy soxla xar tamit war na mat ñaar téeméeri junni ak juróom-benn juróom-benn fukk muy deux cent soixante mille xar euh, marché terminal Dakar euh, rapport bi ñu def démb nga xam ne mooy situation lundi bi tey ñu ngi koy defar ndey mu génn euh, wane na ni amoon nañu am nañu fi cent vingt quatre mille xar muy ak ñaar fukki junni ñeenti xar ëpp ñu fi amoon daaw ti même waxtu wi ñeent fukk ak ñeenti junni xar quarante quatre mille xar kooku dal na xel pour le moment mais dañuy ñaan yàlla mu continuer soo jëlee tamit li nga xam ne nii moom moo euh, jógee bitim bitim réew euh, di dugg si loolu tamit indicateur la parce que daaw dañ gisoon ne dafa rësoon lu bare bare bare bare bare daaw jéeg euh, te dafa gën a néew sax at juróom-ñaari at yeesu yëpp dafa gënoon a néew dugg daaw parce que dañu tegale ñaari at muy deux mille dix sept ak deux mille dix huit xar yi bari woon lool lamb soo defee opérateur yi muy opérateur Sénégal ak opérateur yu jóge bitim réew wax dëgg yàlla dañuy dañuy dañuy dañuy découragé ah parce que soo demee am jafe-jafe delluwaat am jafe-jafe at mi si topp jaar xoolaat sa bopp loolu moo taxoon daaw xar yi manqué ren jii nag li ñu gis mooy soo jëlee li nga xam ne mooy jóge bitim réew euh, malgré que euh, restriction yi waxte affaire Covid. waaw frontière yi ñu tëj ñu waru ñëw circuler yooyu taxoon nañu bari jàpp ne xar yooyu xëy na ñëw ren. waaw xar nag <laughs> ñu ngi ñu ngi ñëw. <laughs> parce que dañu seetlu sax mooy euh, téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñuy xar ci li mu démb bi euh, duggoon nañu jógee Mauritanie jógee Mali ñuy jaar directement te ñetti bunt yi nga xam ne nii moom la Mauritanie ubbi parce que il faut ñu contrôler tamit affaire Covid bi muy Rosso di Bogué euh, méngoog euh, Medina Gàdde fii di Sénégal di Matam mais également yi jaar Kidira parce que lu ëpp ci xari lay jaar ñoom aussi ak xari Mali ak fëlit Moussala sax ci Kédougou dafa jaar dafa gën a bari par rapport ak daaw li ñu gis nag mooy euh, lim boobu ma leen wax euh, cent soixante huit mille xar yi ak juróom benn fukk ak juróom ñetti junni xar dugg na euh, soo ko méngaleeg daaw am na lu mat ñeent fukki junni ak juróomi junni xar liggéey na ko loo xam ni moom moo si yokk par rapport ak daaw xëy na nag loolu dina yégal parce que daaw du année doon année de référence yi mais dina xaw a méngoo peut-être ak at yi nga xam ne nii ay at équilibre la xar du lambo ba mu ëpp nga xar yi tamit du du du du du du am manquement mais du lamb bu mu ëpp dina des mais du du des euh, loo xam ne lu raisonnable lay doon euh, man na am su évolution bi continuer parce que ëllëg euh, yàlla rek a xam ñun mënu mënuñu ñu koo xam dañuy liir diggante at yi su dee nii mu demee nii noonu la continuer ci fan yi di ñëw incha allah yaakaar nañ xarit na doy te loolu tamit li koy firndeel mooy marché yi nga xam ne dafa ne ci biir réew mi muy luuma yi ak marché quotidien yi liñ fa lim ci ay xar ci bariwaay nga xam ne yenn yi day ñëw am ñu ko jënd yóbbu seen kër yeneen yi ñu jële ko foofu yóbbu ko ci beneen marché wala indi ko Dakar foofu tamit gis nañ ni eh, lim bi eh, niñ ko doon limee daaw ak niñ ko limee ren dafa gën a yokk mais loolu dañu constaté tamit sax ren daa mel ni nit ñi dañu eh, xar yi dañu gën a teel a génn hmm. dafa mel ni tamit nit ñi dañu gën gën a a jënd xar parce que soo dañu bëri ñu ngi jënd seen xar kilifa gi muy ministre de l'élevage de production animale ñaax na clients yi ñu teel jënd seen xar hmm. li tax mu ñaax leen ko mooy ñaar mooy benn bi euh, covid lañ nekk dajaloo bu bari bi gënul dajaloo bari boobu nag ginnaaw gënul dajaloo boobu ginnaaw gënul euh, dañu bëgg nit ñi teel a jënd xar su ko defee su defee ay ñaari fan ñetti fan euh, mu feex fekk ku nekk xelam dal duñu tànk dancaloo ci marché yi bien que def nañu ay dispositifs yi nga xam ne nii yëpp moo ci war en relation ak ministère de la santé beneen bi mooy suñu teelee jënd ay xar dina tax tamit opérateurs yi parce que ren li ma leen wax ci français mooy soo seetee Fonstab kese parce que LBA da mooy banque ancien crédit agricole day joxe crédit mais ren crédit bi nga xam ne ministère élevage moo moo moo loxoom lay jaar muy Fonstab daaw 63 euh, millions euh, rek moom moom moom moom lañ mettoon en place mais kilifa réew mi dafa jox ren 3 milliards fonds TAP 3 hmm. milliards yooyu euh, financé nañ ci 1 milliard 800 800 millions jóge 63 millions ba 1 milliard 800 millions loolu tamit mën na expliquer te yaakaar nañ ko bu baax a baax ni loolu la hmm. que opérateurs yi jot nañu xaalis jënd xar pour indi loolu lu am solo la tabaski ren bi ñu war a a mën Euh, kon euh, mobilisation bi daal moom lañu constaté fi mu nekk nii dañuy ñaan yàlla nag mobilisation bi continuer euh, fii ak béyu tabaski bi pour que xelu ñëpp dal kon teel a jënd xar yi nga xam ne nii ministre daf koo wax ñaareel bi loolu la parce que ñëw ñu opérateur yi nga xam ni jënd nañu ay xar indi su jaree dañuy wax rotation dañuy def yeneen rotation hmm. su su su ñëwee ñu jënd ko mu jar moom day amaat xaalis dem wutiwaat indi soit euh, fii ci biir Sénégal dañuy dem waat indi wala dem bitim réew wutiwaat indi day day yomb mais soo xaaree ba ñaari fan des ci tabaski wala ñett ñëpp ñëw jënd jënd xar ñu constaté ni xëy na xar yi dina xaw a manqué tuuti lu ñu mën a dem di jëndiwaat di indi loolu mooy indi yenn saa yi jafe-jafe yi hmm. te loolu suñ ko waxee dafa am lu leer dañ ko teg soo jëlee tabaski daaw bi am na marché yoo xam ni euh, ci guddi ga ca fajar ga gisatul woon daanaka xar hmm. mais euh, soo mooy ka Rufisque par exemple bi ñun ñu fa jaar dañu gis xa marché bi feesaat dell ay xar mm-hmm. eh, soo demee parc Grand Médina noonu moom daf feesaat dell ay xar ça veut dire que kon <laughs> ay xar amoon na ah. mais dañoo ñëwul woon ah, te loolu wax dëgg yàlla lu am solo la ci dalal xelu nit ñi tamit Covid bi dañ koy wax xëy na suñu opérateurs yi ñu bëggoon a dem ñëpp demuñu mais am nañu dem jëndi jënd bitim réew indi mm. mais naar yi ak malien yi ñu ci côté naar yi fleuve bi parce que ñoom dañuy jéggi dex yi foofu opérateur sénégalais dañu dem directement gàttandu leen jënd seen i xar loolu tamit da leen di permettre ñoom ñu dem jëliwaat ay xar indi euh, ci côté boobu euh, li ñu li ñu mën a wax mooy euh, xaru Sénégal seen bopp xaru Sénégal seen bopp ci suñu ren dara loo xam ni nii faagaagal na leen du ay feebar du leneen xëy na noor bi jafe woon na soudure bi jafe woon na mais gouvernement bi digalu président dafa génne trois milliards donc deux milliards ci Covid bi ak un milliard ci fonds ARC bi nga xam ne nii assurance parlementaire moo ñu ko joxoon ñu jënd ci aliment de bétail bu baree baree baree baree euh, jox ko waa waa éleveurs jox ko waa àll bi loolu tax na sooy jur bu bari tax na aussi ñu bari man see yafal seeni jur yàlla def na tamit ren dafa tee dafa tee xaw a teel a taw euh, ci yenn zone yu bëri fi nga xam ne fa la xar yi wàccoon yu jóge woon ci bëj saalum wàcc euh, bëj gànnaar pardon wàcc bëj saalum dafa teel daw moo tax xar yu bari fi mu nekk si sax ñu ngi fortaatu ci ñax mi euh, euh, xëy na loolu tamit dina tax ñu gën a euh, tane tuuti sax ba sa mbokk yooyu nga xam ni dañuy tuddee yenn xar yi xar yi près du corps mm. xëy na ren yooyu <laughs> yooyu du fi bëri. Mm-hmm. alors docteur ñu jeexal ak autosuffisance en mouton di moom sa bopp ci wàllu xar maanaam Sénégal li muy am mu mën a doy aw askanam yéen a ngi woon ci programme bu ni mel ndax mën nañoo xam fu mu toll. Ah, programme boobu kilifa gi moo nañ ko tëgg. ministre élevage tëgg ko boobu ba bañ ko tëggee ba léegi it euh, ñu ngi fi gis ay jéego jéego yu jëkk yi mooy euh, en attendant di xaar ñu am bailleur de fonds parce que bailleur de fonds mooy banque yu mag yi ci àdduna bi comme ay banque mondiale comme ay BAD comme ay BID euh, ak yeneen ñu wala ay FIDA ñu ñu jël programme programme boobu kese kese kese xar ak ak daal di koy financé loolu euh, dafay jafe parce que ñoom li ñu tàmm financé mooy projet multi multi action projet boo xam ne multi filière lay doon duñu yem ci benn rek moo tax gouvernement bi ak ñeent at ni ak chaque année dina am lu mu jël ci budget am def ci ñu siy liggéey nag di def ay bergerie di jënd laa laadum di joxe pour amee yokk yokk euh, yu xar yi di si def ay yeneen yeneen façon liggéey mais tamit projet yooyu ma nga xam ni yi nga xam ni bailleur de fonds yi mooy ñuy joxe lebal Sénégal xaalis ñu ngi koy financé eh, fexe nañu ba euh, projet bu nekk mu am ci biir volet élevage ba bi nga xam bi mu am euh, partie autosuffisance en mouton soo jëlee projet PEDEPS bu BID am na autosuffisance en mouton ci biir soo jëlee PRAPS am na ci yooyu ay projets yi nekk ci élevage la projets yi nekk sax ci agriculture am volet élevage ñoom tamit muy PDRS e muy PAFA muy euh, Padayer ñoom ñëpp dañuy liggéey ci autosuffisance en mouton di def ay bergerie ay vaccination ay formation loolu nag euh, wane na ni production locale bi quand même ñu euh, commencé léegi mu ngi mu ngi avancé te direction des services vétérinaires ci ndigalu gouvernement bi defar na benn stratégie boo xam ni euh, gouvernement validé na ko pour jëlee fi li ñuy wax caaru xar yeeg bëy yi parce que luy faagaagal ñaari xeet yooyu la te ñoom ñoo yore tax autosuffisance en mouton am assurance xar moom sa bopp ci xar kon euh, stratégie boobu nga xam ni waa euh, communauté internationale ñoo lëkkaloo lëkkaloo lëkkaloo pour jéele ko ci àdduna bi yëpp boobu tamit am solo la parce que suñ ko maîtriser rek dinañ maîtriser li ëpp ci jafe-jafe wér-gu-yaramu xar yi ak bëy yi kon affaire mu ngi avancé euh, li ñu bëgg mooy ñu renforcer koppar yi dem ci programme boobu mm. te am nañ ci yaakaar parce que ci Covid crise Covid bi ministère de l'économie et de, du plan et de la coopération euh, mu ngi préparé benn programme de relance de résilience post-Covid programme boobu am na volet élevage te ci volet élevage bi euh, kilifa yooyu dafa nañ si boole nañ jël comme priorité PRONAM programme national autosuffisance en mouton moom sa bopp ci xar mais également programme autosuffisance en lait moom sa bopp ci meew du euh, lu yomb nag hmm. euh, parce que liggéey ci jur liggéey ci meew ak ci dafa moo gën gën a jël temps moo gën a jafe moo gën a complex hmm. euh, parce que luy dund la te situation réew mi ni mu demee nii ay élevage environnement ak changement climatique yi xam nga ni mat juróom-ñaari at a ngi nii hmm. wala juróom-ñett presque juróom wala juróom-benn yëpp dafa am sécheresse bekkoor boo xam ne ci zone bi nga xam ne fa la ñu gën a def élevage fa la mm. fa la fa la ëppee muy a sylvopastoral mm. loolu lépp tamit ay gàllankoor la ci changement climatique yoo xam dañ ko jël en compte mm. moo tax euh, ñun sénégalais dañu war a xam ni mbir mi soobu nañ si ñu ngi si def ay moyens ñu ngi siy liggéey di si def xam-xam mais nag dafa am ay gàllankoor yoo xam dañ koy suuraale d'accord mm-hmm. mooy dox jëm ci moom sa bopp dox boobu commencé na. Hmm. def nañ ci ay jéego am nañ ci ay résultats te dox bi day continuer li am solo mooy mu continuer. su continuer comme réewu tubaab yi. yeneen réew yi nga xam ne nii sax duñu réewu tubaab mais fexe nañu ba yenn euh, lekk yi nga xam ne dañ koy lekk mu jëm ci céréales mu jëm ci agriculture ay céréales wala yeneen wala mu jëm ci élevage euh, jéego yooyu ñuy def dañuy rester ci yi continuer bañ a taxaw loolu moom moo si am solo. Hmm. te déjà ni ñu démarré nii continuer di ko wax di fi def di fi jëf di fi dugal xam-xam di fi dugal xaalis suñ ko continuer yaakaar nañ ni fii ak euh, at yu soriwul incha allah dinañ gis résultat bu baax a baax. Mm-hmm. xëy na nag euh, autosuffisance dañ koy wax mais xam nga réew yi nag benn tëjuwul. Mm-hmm. Euh, ñi ci bitim réew. su leen neexee ñu ñëw fii comme waa Mali parce que ñoo bokk CEDEAO ñoo bokk UEMOA mm-hmm. mais li nga xam ne nii moom la ñu bëgg mooy fexe ba xar yi doy d' mais tamit baax parce que su doyee te yow mënoo të tëju mm-hmm. parce que ki nga ko séqal amoo droit tëj të tëj moom it amul droit tëj la mm-hmm. su boobaa euh, yow concurrence moom mooy dox soo amee xar yu baax xar yoo xam ni nii ñoo gën a yomb keneen ku ñëw di la kujjeeg yow it yow yaa yow yaay jaral mais moom du jaral kon loolu tamit dañ ko sóoraale ci programme d'autosuffisance en mouton bi mm-hmm. bañ a yaakaar ne rek soo amee si limu xar bu bu bu bu doy dèjà mën nga tëju ba kenn dootu dugg loolu mënta nekk parce que ci espace bi ñu nekk la mhm. kon daal ñu ngi ñaax sénégalais ku nekk euh, surtout ñu delloo si li nga xam moom lañ daan def xëy na euh, càcc jur gi moom moo ko moo moo découragé woon ñu bari mhm. mais yar sa xar soit da ngay dem jënd ko yar wala nga am say xar yu jigéen yoo xam dañu jur nga am si kuy boo xam da nga koy yar mhm. euh, loolu dina tax lu mat cinquante wala soixante pour cent sénégalais yi ñoom dinañ am seen xaru tabaski avant tabaski bi ñëw euh, loolu lu lu lu am solo la fexe mm. tamit ba jigéen ñi ak xale yi te ci suñu programme yi jigéen ñi ak xale yi lañ ci visé am na jigéen ñu bëri yoo xam ne jox nañ leen ay xar mm. euh, ay xar yi laadum am na ñoo xam dafa leen ay bergerie ay xale yu góor yi ñu defal ay bergerie yooyu yëpp dañ koy initier wane la rek mais mënuñu ko defal ñëpp mm-hmm. mais dañuy wane ne xale yi ak jeunes yi aussi suñu mobilisé woo mm-hmm. ñii ñaari xar ñii benn xar ci biir yaakaar nañ ni autosu autosuffisance bi dina am parce que ku nekk da si war a contribuer. Mhm. jërëjëf docteur daam Sow ma fàttali ni yow yaay directeur de l' élevage amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM tey ñu ngi lay gërëm. merci maa ngi di gërëm.